ku ne ngi si te ku fi nekk mën ngaa àgg ku ne mi ngi nii rakkale ci bàyyi sëriñ si la rakkale ci sëriñ Ibrahima mais njabootu sëñ benn lan yal na leen yàlla sàmm yal na leen yàlla taxaw te ñoom ñëpp am xam-xam buñ gisee ci waxtaan daaw wa bokk na ci doon waxtaan ren kon Baye Baye Mor Sylla am na chance bu rëy li ko may chance bi nag mooy daa jàngalaat njabootam yar leen boole leen ñu nekk benn loolu moo ko may chance kon ku bëgg. sa ginnaaw jag sa kanam jag taxawul sa njaboot jàngal leen yar leen njaboot soo leen jàngalee ba xam seen bopp xam seen diine xam lu baax xam lu bon man ngaa tëdd nopp kon Baye Mor Sylla fa mu nekk xolam seet lu buy Cheikh Abdoulaye ñoo lay siyaare baax di la ndokkeel di la wax nga daawire mbokk yi lu jëm ci sa wax sa kalaas bi wax mbaa ak nu mu taxawoo seen diine

رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد النبي الامي وعلى اله وصحبه وسلم تسليما السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته ñu ngi leen di nuyu di leen ziare di leen balaax di leen balaax sang tey sant bu baax ki nga xam ne moo taxawee bis bi muy Baye Serigne Sylla ci pasteefam ak dogoom ak bëggum lu baax ci la lii lépp sottee bu loolu lépp sottee it ñu ngi koy sante Ibrahima Sylla mi nga xam ne moom mooy cái gì. bokk njaboot yi ndax ñun ñi taxawuñ nañu bu baax baax mën naa ne jooyuñ baay ndax lépp lu ñu baay waroon na defal Ibrahima si la ñu la defal kon ñu ngi koy bu baax a baax daara ji moom la taxawee lépp loo xam ne jëm na ci daara moom jotam du ko fekkee poosam du ko fekkee loolu moo xam naa ci lu bëree bëree bëri kon ñu ngi sant bu baax ñi nga xam ni ñoo fi teew ñi nga xam ne dañuy jugee bu sori ñëw toog ci baas bu tàng bi ngir alxuraan ñuy yi nga xam ne def nañ ko bi ñuy ñëw ak bi ñuy jàll nekk ay jéego yoo xam ne ay njariñ la la ko suñu borom di def fulal la ko su ko defee Baye Serigne dafa maa waxoon tey ma jéem waxtaan ak mbooloo ci benn thème boo xam ne moom lañ choisiroon moom lañ jëloon moom mooy ndaw naka lañ koy yaree ba mu mën a nekk koo xam ne kuy jariñ boppam lay nekk kuy jariñ société bi lay nekk tey du tee loolu mi def lépp du tax mu yàq ci diineen dara du tax mu yàq ci ci biiram dara loolu nekk dem bu am solo boo xam ne moom la ñu ma waxtaan ci ak yéen loolu nag suñ ko bëggee jàngat dañuy jàngat lan tax ndax suñu borom dafa wax ci alquran ne wa maa xalaqtul jinna wal insa illaa liya'buduun binduma nit ak jinne lu dul ñu jaamu ko jaamu gi nag jaamu suñu borom ñëpp ne mooy julli woor natt azaka kase déedéet donte loolu moom mooy ci jiitu waaye am na yeneen façon jaamu yàlla mooy ni ñuy jëflanteeg nit ñi naka nañu def ba société bi ñuy dund mu nekk société bu baax te loolu alquran moom moo ñu ko wax alquran moom moo ñu xamal ne nit ki euh, xalifa la nekk ci kaw suuf doomu aadama ay xalifa ay wuutaatu suñu borom lañ ci war na fexe def lépp loo xam ne lu baax lay nekk lépp loo xam ne luy jëriñ nit ñi lay nekk mu nekk ci suba ngoon léegi noonu mu jéem a defar ak dundam ba dundam naat am solo loolu suñu borom tax ñu ko sant ndax suñu borom bu ko neexoon fi ay malaaka mais wàccu fi ay malaaka ay nit la fi wàcc ndax buy xoolee luy différence bi ak malaaka malaaka yi ñoom jaamu yàlla rek la ñuy def suba ngoon alors que nit ñi jaamu yàlla di mooy yàlla di bëgg di bañ day am luñ bëgg day am luñ bañ loolu day tax ki nga xam ne ko moom la ñu dund ñu soppi ko def li nga xam ne moom mooy li ko baax ñu def ko ba li nga xam ne baaxut ci société bi baaxut ci nit ñi baaxut ci suñu santé ñu jëm koo wattali te loolu nag pour mu am gis nañ ci jamono toll mooy. dafa am ay puissance yoo xam ne ñoom ñoo daanaka ñoom ñoo moom adduna bi daanaka ñoom ñoo yëpp ñoom nag dañoo imposé ay xalaat ci nit ñi xam ne kenn ku ne dañ daal imposé ni ngay xalaatee ñoom dañoo jàpp ne ñoom ni ñuy xalaatee ñoo la ñëpp war a xalaatee alors que loolu mën ta nekk nit ñëpp mu ñoo bokk xalaat ndax ñëpp bokkuñ culture ñëpp bokkuñ gëm-gëm donte nag développement moom ñëpp mën nañ cee demandoo waaye nag ñëpp ne seen gëm-gëm ñëpp dañuy changé li nga xam moom mooy seen culture euh, ngir mën a développé. xam-xam la rek bu ko jàng ñu koy yóbbu li tubaab bi li tubaab bi def ba créé ba su ma toogee wax nit ñi ngeen koy dégg ci micro li faaw yi def ba su ma toogee bi jël sama téléphone composé woote Dakar jël sama yaay ay nit ñi mën nañu kon duñ jàpp ne ay xam-xam tubaab dañ jàpp ne ay xam-xam la yoo xam ne ñëpp ko war ci société mu ne donte du ne nag ñëpp a koy jaay ndax loolu noonu tamit ñoom ñu koy jaay mais il faut que man ci société bi ñoo xam ne dañuy jub jaay loolu ndax dafa nekk loo xam ne société bi mënu koo ñàkk léegi nag. bu xamee xam-xam yi ñu war a jàng ba noppi léegi nit ki buy jàng xam-xam dafa war a am xam-xam yu ma tuddee moo xam alxuraan la xam hadis ak xam-xam yu ma mujjee tuddee nit ki su fekkee daf koy jàng dafa war a am ay objectif yoo xam ne mooy tax mu jàng ñëpp nga day jàng xam-xam yi ñëpp passe temps wala ñu ne noonu déedéet dafa war a jàng xam-xam ñëpp ay objectif objectif yi yàlla bi eh, si jiitu moom mooy génn ci réer ndax réer kese daanaka mën naa dugal tamit bu baax mën naa dugal moom nit ki su ko xasee ba rek daanaka moom sant nañu bari ci ak dundam te nit ki war def ba génn ci ak réer moom mooy li si jiitu mooy premier objectif ñaareel objectif mooy jéem a jariñ nit ñi boo jàngee alquran nga jéem a jàngal ñi nga xam ne ñoom la soo jàngee xadis nga jéem a wax nit ñi ngir suñu feebar mën a soo jàngee informatique nga jéem a dimbali nit ñi ba buñ amee ba mën a am ay jumtukaay yoo xam ne dina leen permettre li nga xam ne mënuñ ko war a am am ko fi mu yomb a teggi nit ñi lu ñu loolu mooy jëriñ nit moom mooy deuxième objectif troisième objectif bi moom mooy nga dundal xam-xam ndax xam-xam bu mën di doon suñ ko jàngul day raaf xam-xam bu mën di doon suñ ko jàngul day raaf kon nit ki war am objectif jàng xam-xam ndax dundal xam-xam beneen objectif bi ci tege mooy li ñu jàng ñu jëfe ko ndax jàng ba pare ni nga jàng mel ni koo xam ne yow jàngoo loolu it daan nga am solo si laaj kon loolu moom mooy li nga xam ne moom lañ tënkoon ci wàllu xam-xam léegi bu jëmee ci ñaareelu ponk bi moom mooy lu jëm ci wàllu jëf jëf nag euh, nit ki li nga xam ne moom lay. yang tu dia dia dia dia ni semua mai nak orang nak cinta lah ham ham ham ham ham yang ni tuan mai ni tu bawa yang kita lai ni ni Bapak am tidur dua kali ni, tuan lai ni. Kesak lu kita ham ham yang dah punya tu tuan lai. Dah ajar dua kali ni, tidur dua kali. Sam yang ham ham, sam yang ham ham ni. Jadi tu yang semua orang mau ni tu tidur. su loolu moom moo ñu digal ñu jaamu ko suñu borom moom moo ñu digal ñu ko kon ni ko a jaamu war nañ koo xam kon li jiitu ci jëf moom mooy jëfe li nga xam ne moom la ñu suñu moo xam jiw la moo loo xam ne bi nga xam ne moom moo di ci jiitu si jiitu moom mooy bu ci tegee moom mooy. lépp loo xam ne jàng na ko mu jënd ko moom mooy bu fekkee ne dafa jàng benn xam-xam bu jëfee xam-xam boobu noonu ndax nit ki su jàngee xam-xam te jëfewu ko day mel ni lu baax la seen liggéey ndax Cheikhul Khadim day wax ne ku man xawaa nit man wala sa yàmbali nit ñi te yéen loo wane maaru yàq yi mooy képp koo xam ne jàng na xam-xam te jëfewu ko. day mel ni mbaam bu sëb ay téere mook ay mbaam bu sëb xam-xam bu tey jàng jëf moo tax loolu it xam ne alquran wax na ko doon ci yedd ñi nga xam ne ñoom ñooy doon ci doon ci yedd yahud xam xam-xam waaye doon ci seen xam-xam alquran leen الحيوان من سبيله مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل العمال mooy ñi nga xam ne dañoo jàng tawraat te jëlewuñu tawraat ñun dañoo nekk ay mbaam yoo xam ne ñoo sëb ay jéere léegi noonu jëf joo xam ne ay njariñam bari na ci nit ñi kon nit ñi li muy jël jëf gi nga xam ne moom moo gën ci nit yi muy jëf mooy jëf yoo xam nga xam ne moom moo gën nga xam ne moom moo ëpp tuyaaba ci nit ñi noonu nit xam-xamam ak xam-xam bu mën nekk war na jariñ war na koo jógee ngeen jariñ nit ñi ku bëgg xam-xam ku safoo xam-xam waaye kuy gëstu moo doon wax di rakk si Baye Serigne Sylla mii wax nañ ne si daara ji la jàngee ba mokkal ñu gunge ko ci am njàngam comme niñ ko xamee ci Baye Serigne sëñ Ibrahima Sylla moom day gunge ay rakkam ànd ak ay mbokkam di jàppale kenn ku ne ca lan la wara a kon motax mom bi mokkalee ci daara yi ñu koy gunge ci am jangam ba jamono yi ñu toll ñu ngi jàngee université yalla ko yalla defal katan ak taxaway bu rafet ba am jangam ag waye ki kuy amal njariñ askan wi inshallah yalla yalla buggal faram ko wéral ay ciram kon bismillah bay Serigne nga déglu sa mbokk mu jox la waaw bay Serigne mi nak nañ xam kenn la suñu mokkal damay wax ne nag secret sant yi sant yi jatara jatara moom bu ñu ko waxee Touba lu waaye gàtt gàtt xam-xam xam ni kilifa la kon Baye Serigne Jatara mii doom na si Serigne Bassirou Jatara bi ngeen xam kër Baye Serigne Jatara ñoom nag ñu am liggéey buñ def leen ci Baye Serigne Silla ñu ma koy faral di waxee rek ñu baax ñi moom dañoo baax dañ lay defar ba nga mucc ayib ñu jël seen njaboot jox la ànd ak yow di la gunge waaye xam nga ne Baye Serigne Silla mii bu jàngee kër Baye ay seeni sët wala seeni leer ñu jël ko indi ko si daara ji loolu kóllëre la kon sëñ Basiru mii nga xam ne moo fi indi doomam doomam toog nii di bàyyi sëriñ bokk si ñu mokkal ne ñëpp xam na xale bii daa mokkal ñu tànnal ko ay bërëb mu feeñal dem bismillah ولقد ولقد غزا الله ميثاق بني إسرائيل الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولقد قضى الله ميثاق بني إسرائيل وبعثنا منهم اثني عشر نقيبا فقال الله إن فإن أقمتم الصلاة وآتيتم الزكاة وآمنتم برسلي وعظمتموهم وأقرضتم الله قولا حسنا لأكفرن لأكفرن عنكم سيئاتكم ولا لأدخلنكم جنات تجري من تحتها الأنهار فمن كفر بعد ذلك منكم فقد ضل سواء السبيل فبما نقضهم ميثاق الكلم عن مواضعه فله حظا مما ذكروا به ولا طمعن فاطلع على قائلة منهم إلا قليلا منهم فاعف عنهم واصفح إن الله يحب المرسلين ومن الذين قالوا إنا نصارى أخذنا ميثاقهم فنقوا حظا مما ذكروا به فأخرجنا بينهم العداوة والبغضاء إلى يوم

ndax say maam say waajur ñëpp lii xam jàng alxuraan ak jàngale ko tey liggéeyal di jëfee ndigal bàyyi tere loolee sa waajur a nekk nag yàlla nga tegu sa yoon woowu rek bañ koo wàcc ci barkeb Serigne Touba jërëjëf sëñ Diatara jërë ngeen jëf bàyyi di jërëjëf bàyyi Serigne rafet na lool kii ko أعوذ بالله من incha allah sadaqallahu al-aziim wa anti ahsan noonu la di doon Serigne Madické Niang ak soxna maam bu sa may yow bu sa papa ñëwul maa lay foto ndax yow sa papa laa jox ko fi muy tari gaaw dañ ma ko fotool foto yu rafet bismillah a'uuzu billahi minash shaytaanir rajiim bismillahir rahmaanir rahiim اقترب